xam ngeen mën nag uus <laughs> waxal sa doom lu ngeen war a waxtaan waxtaanee waat lu topp ah sa doom daal bu defee doo wax baax na alors moom c'est toi qui crée des problèmes ah Yolande tooñ nga ma nag. moom la créé ma benn problème c'est lui. man créé ma créé benn problème Yolande nag maa ngi jégalu Yolande yow sama gaañ ngoon bu mel ni ay bu mel ni ay gudjaa bi. je m'excuse de Binette alors. bu ñu paree foofu nañ dem si beneen takk bi nga xam ne nii moo ngi def polémique dëgg la wala du dëgg en tout cas ki nga xam ne ni moo war a takk Mario moom nee na nañ wàcc xew mu rëy wala cër bu rëy si STM des fois mu ngi naan euh, tii boobu mariage je sais tii boobu mariage est-ce que da koy wax pour mbalak ou pas dafa confirmer kii di Mario day takk te fu mu toll nii fàtt na ki nga xam ne nii moom moo nekk moom moo nekkoon soxnaam. alors euh, Binet si c'est nañ dem c'est-à-dire Adamo si information boo xam ne jox nañu ko si mariage bi nga xam ne war na xam war na am si diggante kii di Mario ak Alima daal di ñëw si plateau bi. nga mooy Alima série famille Sénégal la bokk Ndaya Diop di Alima ñiy enregistré nan préparé wu. kii moom mooy génn maariyo mbay Mbaye gannaaw Mario Mbaye ba mu bàyyante ak ndaxte kii lay génnal seen génn bi ñoom ñaar nag yàgg nan mais dañ ko doon nëbb oto bi mu yore nii di ko dawal Mario ko ko jëndal Mario moo ko jëndal oto bi mu yore ah, di ko dawal nii te oto boobu coow lu rëy ngi ci te leen ko oto bi muy dawal moom alima mii coow lu rëy ngi ci Mario mbay moo jëndal alima oto bi muy dawal muy daya jóob Mario ko jox oto bi muy dawal Mario Mbaye moom moo ne Alima bu ma la gisatee série famille Sénégal ah seen diggante ñoom ñaar amoon na coow série bee ko waraloon léegi nag Mario mbay nag moom moo tax Alima bi bàyyi ki nga xamante si nii moom mooy série ba fa mu doon théâtre famille Sénégal bàyyi na ko. nekkatul série famille Sénégal génn na fa génn na ca épisode yaag yépp Mario Cotere léegi nag ñoom ñaar dañuy def mariage bientôt mariage bi bientôt du ma leen wax date duma leen wax temps Mario ngi départ ñëw Sénégal gannaaw suba lay ñëw tey lay départ ginnaaw suba dina ko fekk Sénégal incha allahu rabbi mariage ñoom ñaar xaar leen ko maa leen ko jox man Adamo Mario day takk Alima mii man maa leen ko wax xaar leen loolu acca moo ngi noonu dégg ngeen Adamo kàddu bu joxe Mario day takk ki nga xam ne mooy Alima euh, xamagul nag date bi kañ la waaye fu mu toll nii dangay takk alors ñaari choses moo si war a am euh, benn parce que Adamo wax na ko nee na moom ak Mario ñoo bokk même kon ñaari kër ñoo séparé di deux minutes dix minutes bu demee dem kii kër Mario Mario wax mu génne information yi que mu def coow mbir yu amaat si moom wala rek mariage bi nekk dëgg ñaari mos mën a am bu nekkee dëgg c'est cool bu nekkul dëgg nag dafa am beneen bu amee bu nekkee dëgg dafay créer beneen polémique parce que si biir confession bi nga xam ne ni ndaxte moo ngi ko doon def ak ki nga xam ne nii moom mooy nijaayu Mario dafa am benn kàddu bi nga xam nekkoon muy sëy bi tasawul moo ko xool. sama sama yoon nekk ci. d' accord maintenant <laughs> bu fekkee sëy bu tasawul laaj. waaye ba joxal ba pare. Ouz vas boo demee ba génn kañ di fen di wax dañu sonal xam nga dañ ñuy tympaniser de un. <laughs> moom du may aadama fii ku wax ndànk mën nañ la dégg. waaw. ah. nga day safal xorom rek. déedéet fii ñun gën a saf ñëpp xorom te dañuy wax ndànk ñëpp duñu ñu dégg ay suñu jikku géwél di ñëw rek ñu sàllar ko. may wax ndànk moom ku ko wax ñu dégg la. boo demee bay fen xamal lu leer li ngay fen ay kii dina def non xamal yoo xamal lépp xamal heure xamal ñëw xamal jour ñoo xam ni fen bi assuré na maa ngi déglu. Mhm. Mario góor la di. ku ko neex mu tàkk di. heure bu ko neexee mu takk ka ñuy takk it jigéen la di am droit bëgg ku ko neex ñu takk ko loolu la du événement de déedéet du événement de jàppee mu ko événement de fii ku am yow mii fu mu ne nii bu la yàlla dogalee léegi nga rëy xéwal war a takk soxna da dem takki soxna di am déet man mii noonu keneen ak keneen soit que da gis ki da tànn ba gis ki nga bëgg ngir fas ko rek de ci farata yàlla ak sunna su Muhammad man it mu demee noonu keneen ak keneen ak keneen demee noonu waaw soxna si bàyyi fii bàyyi fee loolu sunu nga ñu nekku ci ànd ak kii ànd ak kee je m'en bats dañ koy takk bu bëggee na sëy bu bëggul bu mu sëy kay takk day takk mooy xool leen ka ko neex mu takk ko walla leneen sonn ci fenkat bi man. muy problème euh, moo Albourakh wala Gaston Production wala kan sax. Euh, kan moo fi nekkaat. je sais pas bàyyi na. man waa mooy ñoom ñooy alburax. waaw voilà ñooy alburax. waaw ñu woolee pour ñu tëgg. nu ko ci foone man ñooñu laa xam ne waa alburax tëgg ma mun naa ko tëgg. Euh. alors Nana. waaw Momo. question bu ma laajoon léegi doo ko laaj. ndax Alima magul kii Mario. maa la laaj lool li ma la laaj. wax ko waay ko li ma la laaj wax ko ah, moo ko mag de ah. ah loolu nga ma laaj man après nga laaj man déedéet li ma la laaj wax ko rek. man pour man li ma la laaj moom ngay wax ngay wax leneen. bu yow boo bëggee laaj loolu doo ko laaj rek gënul. kii la présentateur doo ne ma nangam ak nangam man ah, man euh, bu fekkee question boobu nga ma posé man j'en parce que Alima xaw ma ko Mario euh, ci télé bi laa ko xamee de même que Alima aussi. comme xam nga. Mm-hmm. donc bu fekkee loolu nga ma laaj man man j'en sais rien wax dëgg yàlla xaw ma ñoom ñaar ku mag. mais ba pare même bu fekkee ni sax Alima moo ko mag loolu. Eh, dara jarul jarul jarul romb. lan. sa xalaat ngay waxee nii. déedéet. Ah, yow yaa ko laaj ah, ci kanamu ñëpp. Ah. waaye man yéen ma ne leen diw moom wala diw moom ak kii. oui man na ko magee treize ans. wala moo ko quarante neuf ans. waaw ak plaisir dëgg la. en matière d'amour y d'âge donc mi ngi noonu euh, mbëggeel amul âge. voilà wax na dëgg la mbëggeel ak plaisir ah, dëgg la pour nana xama technique bi ko mën a xool ma ah, man maa ni moom mbëggeel ak plaisir ak plaisir mhm. amul âge dëgg la lu neex lu neex la ku nekk koy sentir. ku nekk bëgg lu neex cuqute saf. amul aaz. yow yow xam nga ci dara bu baax dama ci yow xam nga ci bu baax dara. waaw mi ngi noonu donc euh, <laughs> Momo. nana ak li fi jot a xew. Momo. ak li fi jot a xew. <laughs> ak du fi xew kay. ci fi jot a xew ci digganteem ak euh, ex jabaram je sais pas je dirais pas ex mais yaa ko wax léegi parce que nee nañ sëy bi voilà sëy nee nañ sëy bi tasul alors que euh, kee moom ma ngay glow up lu waaw mi ngi glow up lu neex waaw jongo ba yàqu mais mais moomoo euh, li fi jot a jaar yépp ak loolu noonu mhm. euh, laataa ma ciy ñëw sax damay ñëw ci ki wax wax ji laataa muy wax lii nañu xool li mu njëkk a wax dafa yàq ndaxte lu toll ni keteme non non dinaa ci wax. vas-y xam nga lu tax ma ciy wax. parce que wax dafa dafa garaaw. moomoo mm. te man comprendre ma ñaari nit jote nga ñëw pour joxe information xas kenn ki ba pare. Mm-hmm. ñëw daal ne xaaral ma joxe information bi à quel prix moomoo. prix de voilà merci à quel prix. de duul prix de duul mi ngi noonu donc man jàpp naa ni xas gi nga xamante ni xas na ko ndaxte day juutoog day waŋeetu day nàngam ak nàngam. même ci yoonam nekkee sax. du woon moment boobu la ko waroon wax ba pare artiste la. ndaxte. Mhm. yoon na lu mu juutu. yor na xam ne sa taat comme fer. waaw donc moom loo yëngal. mi ngi noonu donc ba pare ndaxte artiste la. kenn gisu ko ci lenn loo xamante ni rek mën nañ ni duut baaraam ni dañ koo fekk muy muy def naka sulut noonu. lu baax la ko ñëpp xamee. très bien. social moo ci gaaw. boo boo ko gisee bañam ngay njëkk gis. waaye il est trop trop trop jovial. mi ngi noonu donc yow nag yow xamee la lu dul saaga. duul xaste. wax waxu jàmbur. wane taatu jàmbur bay wane say taat donc yow amoo lenn loo ñuy informé walla nga ñu koy wax. benn ma ñëwaat ak li fi jot a xew lépp ci ex digganteem ak ex jabaram man jàpp naa ni moom bu amee ay mbokk te lii war a nekk dëkk du ko siiwal déglu leen ma bu baax dama ne ak li fi jot a xew dañ maa dóor dañ maa teg matraak dañ maa nàngam damaa avorté ndax maltraitance damaa nàngam ak nàngam boobaak léegi yow tontu woo amaana sa jegeñaale moo ñëw tontu yow ba léegi àdduwoo ci nga war a takkaat déjà man je pense que bu doon sama mbokk man je dirais que c'est très tôt pour nga takkaat parce que day mel ni jabaru faj mer comprendre nga donc loolu sama gis-gis la man bi ci topp mooy nga war a takkaat ñu ne dangay takk ak doo takk nga wut maanaam koo xamante ni moom moo soof. moom mooy fenkat national international. d'accord nga ñëw wax ko ko ne ko yeggal yeggal ma ko. ku la wax moo ko ko wax. pourtant fa laa doon ñëw. daa mën a dugg. fa laa doon ñëw nii fa laa doon ñëw nii dama ne kenn xamul ndax moo ko ko wax yaa ngi dégg waaye fan la jëlee information bi xam nga dafa am loo xamante ni logique la da ngay topp logique bi dafa wax ni ci biir vidéo bi ba tey mi ngi wax ni yaa ko wax léegi sax te man aussi déglu naa ko. mu ni carrément sama diggan sama këñu ba pare li gën a garaaw avant muy joxe information bi bi mu <laughs> bi mu xam nga moo lay wan ne stratégie bi mu jël c'est pas bon du tout. d'accord c'est pas bon du bu ci ku xam communication déjà yow yaa ngi xas ko jigéen ki ba mu yàgg nga ne ku góor ki nangam la doomaraam la nangam ak nangam ñu baal ci kàddu gi mm-hmm. comment nga. di la très bien mm-hmm. di leur bu mag la. xam naa ko bu baax man nag moom ñoo bokk ñoo bokk koñ même pas dix minutes nga dem këram wala moom mu ñëw sama kër kon ça di dire yéen a ngi dem lante ka dikkalante parce que même xam nga yow temps bi ngay def pour dem këram xam nga temps bi muy def pour dem pour ñëw sa kër donc yéen a ngi dem lante ka dikkalante nga xas egg sa jabaram ba pare ne dafay takk déjà bu amoon ay mbokk bu fekkee moo la ko wax du la ko wax dégg nga ma bu fekkee aussi takk gi dëgg la man jàpp naa ne waroon na koo nëbb wala mu bàyyi ba ci kanam parce que nag waa qu'on puisse dire yàqamti yàqule ba pare moment yi famille sénégalaise di daw alima di ci jouer dama bëgg ngeen déglu mu baax. booba ndaxte mi ngi sëy ak Mario. te dégg nga li Adama wax. daf ni. <laughs> ay ma dem ah. Ah, daf ni. moom moo ko teree série bi cest à dañoo amoon problème kon ça veut dire mi ngi doon génn ak moom ci suuf bi muy bi muy bi bi mu amee jabar mi ngi doon génn ak Alima ba tere ko c'est-à-dire loolu yëpp du samay wax waxu ko góor gi la c'est-à-dire dama je ne fais nag. kon Alima xaw ma série boobu du ma ko seetaan. Mhm. Alima ban ban période la bàyyi maanaam série boobu si foofu bu wax quoi. saison 3 bii nii. bi nga xam ne commencé gu je pas mi ngi doog ko commencé. saison 3 bi lañ ko ci gisul. moom ak Fanta Seydi Fanta Seydi moom mooy jaar yi euh, ci moom moo nekkoon bonu euh, nu mu tuddati. Hmm. Euh, jë soxna Bator voilà moom moo nekkoon bonu soxna Bator ci ci ci série bi après Marlo takk ko comme xam nga donc kii kii ñuy wax ni moom la diw mii di bëgg a takk Mario di bëgg a takk moom moo nekkoon ñett ñeenteelu Marlo ba ci deuxième saison bi ñu ngi ko ci doon gis. troisième saison bi lañ ko ci gisul. est-ce que dégg nga ma. d'accord d'accord te man sax te man sax man gis naa ci tournage yi ma gis ko moom ak yeneen acteurs yi ñu diri seeni valise pour ñëw tournage pourquoi créer ces polémiques. est-ce que du ou pas. yàq na ko de. su dee loolu la waaw moo tax ma ne su dee loolu la. su dee lool la. yàq na ko ah. waaw. parce que kee mi ngi gëloo ëpp lu saf nag. dëgg neexul boo bëggee takk dama nga takk mais pas di créer polémique quand même hmm, kenn te raw la nga takk. Ousse yow takkagoo. takkagu ma de. tax dara. d'accord na la ba pare. waaw man takk nañ ma teral ma nag tubaarikàlla dëgg la waaw may sëy lu po. <laughs> moo tax léegi takka la ñaareel di sëy lu neex. <laughs> ñaareel moom da yow yow. may sëy lu am jom. <laughs> yéen boo amul ñaareel ma xam ne yow dëkk bi man signé doo fi dara. ay man sama jëkkër polygamie la signé. ay dëgg jaabi yàlla nga am ñaareel yow tamit. polygamie. tey jii ay ah. ne. polygamie la sama jëkkër si waaw moo tax nee na ne ñaareel wax ba pare day wax ashhadu an laa ilaaha illallah. ko war a ñaareel neex bu nee la ñaareel nga tëb. waaw damaa tëb déggoo ko ah yow leen kuy tëb de yéen leen kuy tëb ak a fi am jëkkër te ñu siraan baal ma te <laughs> ñu siraan yàlla nga am jëkkër. <laughs> koo fi ñaanal wujju jëkkër koo fi dootu la xool lu leer laa la wax man rek ngay ñaanal wujju ma toléré ndax man ragal